léegi ci politique ànd ceeg Alxasan aywa Alhassane tey da nga nag euh, interroger l'histoire dès le soir ci taarixu bokk na ci mouvement yi njëkk ci wàllum politique ci Sénégal indépendant muy mouvement euh, pour le socialisme et l'unité nekk parti euh, bu président Dia dafa mel ni ay fandoom dañoo bëgg koo dekkalaat. mi ngi noonu mu doon loo xam ne. Euh, siège bi taxawal nañ ko mu firndeel beneen taxawaay boo xam ne bëgg nañ mu am Mamadou Dia ko ko wax rek. Mhm. fàttaliku histoire. Mhm. fàttaliku Sénégal indépendant. Mhm. donc ci loolu la ñu fas yéene wax tey ci wàllu taarix tuuti. Euh, naka lañuy def ba parti bi judduwaat euh, objectif yi lan la ay laaj la yu nu samp buñ ci bëggee am tontu dañ ci ànd ak Jaafara ak Alhassane Ba ci élément bi. Mamadou Dia. ab patriote la ko jàppee buy wax ci moom nee na xolam dafay fees ndax nit ba mu woon te li nga xamante ni itam amoon na ko yéene ngir Sénégal. le président Mamadou Thiam man suma koy wax dafa am lu may sentir ndaxte xam nga suñu naan le sauveur nit kuy ñëw di jël peuple di ko di ko sauver président Mamadou Dia loolu moom moo ñëwoon pour sauver le Sénégal et malheureusement. tey ji gis nañu li nga xamante ni moom mooy reconnaissance bu jëm ci ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Dia nekkoon njiitalu conseil bu Sénégal 1957 jàpp 62 tey ji building administratif bu yow ci turam ak ñeneen ñi nga xam ne itam jël nañu seen i édifice tuddee ko ko mu jàpp ni reconnaissance bu am solo la waaye nag li nga xamante ni moom mooy yéenam pour Sénégal te mu tegoon ko fi faaw ñu yëraat ko. te yëpp bindoon na ko xaatim na ko bind ko ci ay ay ay ay ay documents am mag yëpp a un projet autogestionnaire bu nga xam an ñu ngi ci nekk di ko def pare na presque te loolu c'est un système coopératif et là bu ko defee macha allah macha allah ñëpp dinañu gis seen bopp ci réew mi maanaam daal président Mamadou Dia c'était un patriote waaw un vrai patriote te ñu mel noonu nag bu ñu génnee àdduna. dañ leen war a fàttaliku dañu war a xool seen xalaat ak seen gis-gis bu ñu amoon ci réew mi. xalaat ak gis-gis bu mu bëgg wéyal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci ginnaawam ci MSU. ce sera pas un combat facile. Euh, euh, def nañu ay sacrifice bàyyi njaboot ak yëpp ñibbisi kon bitim réew bàyyi fa njaboot yi ba ñu jóg di ñibbisi. am na ñu nga xam ne dañ ma doon wax j'ai un frère qui m'a carrément dit que je dormais au gaz euh, ci moom ànduma ak sama sago ndaxte ci moom Sénégal kenn mënu ko defar pessimiste à 100 pour cent ma ni ko il faut pas parler comme ça ma ni ko ñun ñooy ñu nga xam ni la relève ma ni ko chinois yi du ñu defaral suñu dëkk français yi pareil les américains ñoom ñëpp dañu ñëw exploiter ñu dem seen yoon on est dans un monde de capitaliste loolu ñun nag ñun doomu Sénégal ñun ñoo war a dellu ñun ñi nga xam ne ñoo jàng ci université américaine yeeg les grandes universités de sa monde ñun ñoo war a ñibbisi redresser ce pays mais bu ñu ko defulee c'est c'est c'est abandon c'est même je veux dire trahir notre nation. Mamadou Dia génn àdduna atub tey jii 2021 mu nekk fukki at ak ñaar bi nga xamante ni làkku na liggéeyam nag ñu fas yéene ko wéyal ci biir mouvement pour le socialisme et l'unité ñu jàpp ni. li nga xam ne nag moom mooy yéene gi ñu am ci biir Sénégal daañu xar seen tànk tubéy ngir def ko. aywa mu lu am solo ni nga ko euh, defee Alhassane Ba li nag dafa bokk ci taarixu politique gu réew mi muy mouvement pour le socialisme et l'unité euh, tey euh, ay ñooñi président Dia jóg dekkalaat ko Chérif. waaw moo tax bëgg nañoo ñëwaat ci jaar-jaar Mouhamadou Dia mel ni ko Alassane waxee parce que parti la boo xamante ni nekk na parti d'opposition mu fi créé woon moom Mouhamadou Dia amoon euh, léthargie et cetera ñii bëgg nañ koo samp mais kii bàyyi parti bi di Mouhamadou Dia mi. absolument Mamadou Dia boo ko waxee rek nga fàttaliku euh, tuuti li nga xam ne moom mooy euh, jamono avant indépendance ak indépendance ak li nga xam ne xewoon na en 1962 mais bala boobu da ngay jàpp ni Mamadou Dia nekk na koo xamante ni tey. Euh, mun nañ jàpp ni c'est l'un des euh, combattants de du Sénégal indépendant euh, boo xoolee bokk na ci cadre yi nga xam ne ñu ngi doon ci li nga xamante ni moom mooy d'abord ci wàllu assemblée nationale française bi boobu nekkaguñu amaguñu indépendance nga xool ne nekkoon na grand également conseiller bu AOF nekkoon na tamit ki nga xamante ni moom mooy sénateur ba keroog muy en 1957 muy nekk li nga xamante ni moom mooy président du président du conseil boobu avant indépendance la mais bi ñu demee ba 1960 ñu am indépendance euh, boobu nga xam ne moom le président du conseil nga xam ne avec ci Sénégal indépendant boobu euh, bi ñu dàmbale nag mu mel nii comme poste premier ministre. bi ñu demee nag ba 1962 foofu mooy problème bi nga xamante ni amoon na ci problème digganteem ak Senghor euh, ci wàllu bicéphalisme boobu nga xam ne nag ci wàllu pouvoir jàppoon nañ ne Mamadou Dia moo doon doxal donte président Senghor moom oo nekkoon le président de la République. ci loolu nag ba problème amoon ba ñuy wax tentative de coup d'état ñu ngi fàttaliku sax bi mu bi mu bi mu taxawee ci kanamu attekat bi bu ñu ko jàppee dafa ne woon moom euh, munuñu def coup d'état bu fekkente ni ñu ngi ci nguur euh, loolu moo nekkoon moyen de défense am pour wane ni moom daanaka tentative de coup d'état boobu ñuy wax moom daf ko weddi loolu nag euh, version yi bëri na ci mais mën nañu jàpp ne rek ma Mamadou Dia c'est un des les c'est des patriotes yoo xam ne tey jii xeex nañu ba Sénégal yegg fii tey euh, nga xam ne yegg na ko ci wàllu démocratie ci wàllu li nga xamante ni moom mooy euh, moom boppam ak souveraineté am ci wàllu li ni moom mooy doxalinu àdduna kon kooku tey ji mooy ki nga xam ne moom la ñuy fàttaliku nag euh, mu génnoon àdduna 2009 bi mu nekk prétexte tey ji ñu waxtaanee ko nga xam ne 25 janvier bi rek moo nekkoon anniversaire décès am mhm. waaw ci wàllu politique moo nekkoon particularité politique am dëgg-dëgg Mamadou Dia boo xoolee mën nañ jàpp ne ci wàllu socialisme surtout moom euh, nekkoon na koo xam ne daf ci doon yëngu ba tax na sax gis nga projet de politique am boo xam ne euh, mu ngi ko doon prôné boobu ba léegi muy le socialisme autogestionnaire mooy nga xamante ni tey ji euh, mën nañ jàpp ni sax mooy économie de relais nga xam ne mën nañ ko jàppee ay ay cotiser ay tontini xeet yu mel noonu li mu bëggoon rek mooy li ñuy wax humanisme intégral mooy ñu fexe ba li nga xamante ni moom mooy nit ki ci boppam ci wàllu euh, dimbalante ci wàllu yemalante yem yemale mooy euh, yemale mooy nekkoon li nga xamante ni moom mooy gis-gisam Euh, gis nañu sax ouvrage yi nga xam ne bind na ko mooy euh, nation africaine ak solidarité mondiale gis nañu foofu la tàmbali sax li nga xamante ni moom mooy gis-gisam ci wàllu koom ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal ñëwaat ci beneen ouvrage am boo xam ne mooy le Sénégal euh, Sénégal trahi mooy li nga xamante ni moom mooy beneen ouvrage am en 1988 la ko bind boobu tamit mu gën a fësal li nga xam ne moom mooy li nga xam ne gis-gisam xam nga bi mu génnee prison en 1974 dafa ñëw dugaat ci langue politique bi. bi mu dugaatee ci langue politique bi gis nañu jaar jaaram yi xam nga te euh, li ñuy wax euh, parti boo xam ne demoon na mu taxoon mooy MSU bii nii. demoon na sax ba jàppale li nga xam ne moom mooy président Abdoulaye Wade en 2000. Euh, jàppale woon na ko ci wàllu li nga xamante ni moom mooy alternance bi. loolu noonu yëpp nekkoon na yoo xam ne c'est des actions qu'il posait pour wane bëgg-bëgg ji nga xam ne moom la am ci ci Sénégal euh, loolu nag moo nekkoon wallu wàllu particularité am ci wàllu politique mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo le peuple bi ñu jàpp ne ñoo xam ne tey néew nañu doole mooy ñu fexe ba tabax li nga xam ne moom mooy dimbale leen wala xam nga économie capitaliste. Mm-hmm. dafa dafa am particularité am mais moom dafa am beneen gis-gis boo xam ne uute na ak moom ba tax na nag tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy farandoom sax. Euh, jàpp nañ ne ñoolu politique la boo xam ne tey war nañ ko mettre en œuvre euh, ba mu mun a ba mu mun a jëmale Sénégal fi mu bëgg a yegg. waa MSU ñoom tey bëgg nañ poursuivre li nga xam ne moom mooy ay œuvre am nest te à fait MSU gis nañu bi ñuy màggal euh, anniversaire décembre bi sax la ñuy inauguré waale seen siège bi ñu bëgg continuer li nga xam ne moom la tàmbali woon mmh. euh, ci loolu nag jàpp nañ ne mission bi du yomb xam nga tey dañu nekk ci li nga xamante ni moom mooy renouvellement de génération mmh. ci wàllu politique dafa war nag ndax ñoo xam ne tey ñu ngi woon ci Sénégal avant indépendance ba tey jii nga xam ne Sénégal am na indépendance muy dox ba yegg fi mu yegg il faut mu am loo xam ne dafay am coppite ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal faaw ñu may ndaw ñi chance mm-hmm. ñoom tamit ñu mën a exprimer wu euh, ci li nga xam ne moom mooy seen gis-gis ci wàllu politique ñu sukkandiku nag ci ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñu jiitu ndax ku la euh, garab gu la sut rek moo lay may keram euh, ndaw ñi nag ci loolu la ñuy mën a basé wu ñoom tamit ñu mën a jël lenge yi ci moo tax nag MSU tey bëgg ñoom tamit investir waat beneen yoon ci champ politique bi continuer li nga xam ne moom mooy li xalaat li nekkoon xalaatu Mamadou Dia Euh, ci wàllu euh, socialisme euh, autogestionnaire boobu ñoom gis nañu sax moom Djibril Seck mu ngi ko doon wax léegi moom mooy coordinateur national bu MSU mu ngi ko doon wax léegi mooy ñu fexe ba li nga xam ne moom mooy projet boobu ñu dekkalaat ko ñu ngi ci doon liggéey fukki at ak nii wax na ko pour Sénégal fi mu fi mu jëm ñoom tamit ñu mën ci dugal seen loxo ñu mën a tamit teg jege askan wi xam nga tey Sénégal mën nañ jàpp ni coow askan wi gaa yi sonn nañu. ñu ci bëri ndool maa ngi fi. loolu nag il faut que tamit c'est vrai tey le président la république gis nañu. ci wàllu reconnaissance sax euh, Mamadou Dia tey jii building administratif moom la ko tuddee. yooyu yëpp am na solo. Mhm. mais il faut que ñu fexe utam politique yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon teg. Mhm. ñu yër ko bu ñu ko yëree aussi ñu mën a su mën cee sukkandiku même bu ñu jëlut lépp. au moins mu mën a dimbale euh, Sénégal fi nga xam ne tey jii askan wi sonn na ko sonn na ci. Euh, soxla na ndimbal ñu ñu taxaw ci le président de la république moom tamit gis nañu tey ay politique euh, euh, sociale yi ñuy def yooyu ne am na solo ndax ci social bi aussi moom mooy mën a dimbale ndax biir bu feesul du mën a xalaat du mën a liggéey du mën a itam tabax li nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi. point dara <laughs> lay fàttali wala xamoo kii boobu blague boobu noonu <laughs> moom la lay fàttali <laughs> Habib. Habib Habib réewul alal moom mi ngi mi ngi xalaat moom vente affamé naa point <laughs> dissertation bu doy waar boobu nga xam ne mooy lañ ko mujjee defal. mais MSI quand même parti la bu. Mm. c'est vrai que. comme ni mu ko waxee bi Dia génne prison créé woon ko am na ci ay figures yu mag yoo xamante ni maanaam gisoon na leen ci. ñu mhm. demee nekk ñoom. Massène Niang bon mhm. malheureusement gisatuñ leen ci paysage politique bi. politique bi absolument Bama Ndiaye aussi mi ngi ci woon mais moom dem na fekk waa Suxali ci ñoom ak ñoom Omar Sarr ci parti muy ñoo xamante ni ils étaient avec Mamadou Dia. même si au début des années 2000 comme ni nga ko waxee Bama Ndiaye après am na problème ak créé MPS euh, Faxas euh, muy non parti muy parti boo xam ne en tout cas. Mhm. comme ni borom malheureusement am nga euh, Mamadou Diaw sax comme Cheikh Anta Diop. amoon nañ ay yéene mhm. comme ni ko waxee waa du ay pro politiciens yi dafa dafa mel ni bu ñu ay élections wala yu mel sénégalais mhm. ñoom la ñuy ñoom la a faral ñu ci mois de février xam naa incha allah ku mel ni Cheikh Anta li ko yàq tam mooy après ay division yoo xamante ñi nekkoon ci biir parti ku nekk créé sa courant ba nga xamante ni malheureusement pesé tun trop ci li nga xamante ni moom mooy paysage politique fii ci Sénégal parti yu bees wala les jeunes partis leen gën a gis ak mouvement yeeg coalition yi nga xam ne dem nañ ba commencé les partis mm-hmm. mais souvent loolu nga baal ma mm-hmm. très rapidement rek souvent da gis les Sénégalais du ñu am habitude euh, ci li nga xam ne moom la proposé mais mm-hmm. c'est la personne moo leen di intéressé souvent da gis ne il faut euh, euh, il faut ñu am culture boobu ñuy mun a yër li nga xam ne moom la ñuy proposé au lieu ñuy intéressé wu carrément sur la personne mm-hmm. loolu nag dafay am solo souvent euh, ci ci ci ci ndimbale Sénégal jërëjëf Alassane li nga indi am na solo li la Chérif wax na comme ñu ngi ci février Cheikh Anta Diop xam naa dinañ ci dellu ak ci beneen gëstu ak partem mm, ñu ci mel ne ñoom professeur Diallo Diop ñoom it déjà liggéey ci dinañ ci ñëwaat incha allah RND mm, moom dafa tas yow Diallo Diop amoon na courant professeur mm. Madior Diouf am na le professeur. Euh, mais kuy wax ci Cheikh Anta ak seen parti bi ñooñu moom faw nga. waaw nga kii leen voilà mais malheureusement division yee tax ku ci nekk léegi après. yaa ngi ah, sa parti ngi ci télé bi de. ci yéen a kaay yi di day relance bu ko neexee 7h34 <laughs> jot na Alassane ñu ngi lay jaajëfal bu baax soo ko bàyyee fi mi ngi defaat. benn politique bi lay toog exposé ba heure bi jot. waaw passionné politique la <laughs> euh, xam-xamam dafa yem màcc tarkal la ñu dem ci li ci yéen a kaay yi ci ak Chérif Dia.